لي sëñ Cheikh boo gisee melokaanam wi ak doxiin wi ak nangu gi ak bi ak nangoo wàcce boppam te sëñ Tuubaa mi sédd ñëpp sédd ko li ko waral mooy dañ ko ca toqi diggante bi mu génne mënoo fee génne di yées ab murit sëtub Cheikh Mouhamadul Bachir la kuy wërug taalube boo duggee ko sëñ Bachirul jorut nga di ko génn doomi sëñ Abdou Latif la loolu doy na sëkk misaal ci wone ab murit boo gisee nii mu doonee jëwriñ ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir di jëwriñi njaboot gii liggéey ci biir kër Cheikh Mouhamadul Bachir ñoom ñëpp njëwriñ gi dara waralu ko lu dul pas-pasam ñi ko ko def teguñu ko ci kaw seenub jarbaat la ñu def ko ko déedéet tàmbalee ko ci sëñ Moustapha mi nga xam ne moo ko jiitaloon ci kanamu njaboot gi muy saytu liggéey bi liggéeyu dongo yi bokk gi mu bokk ak waajuram bu jigéen ndey ak baay taxul mu defoon ko ko sëñ Mountakha mii fi nekk itam ñëw feddali ko bokk gi mu bokk ak waajuram ndey ak baay taxul mu def ko nijaayam yi fi nekkit muy Cheikh Mahmadul Fadil ak sëñ Isaaxa wóolu giñ ko wóolu ba lu nañu mën koo wax ak moom njarbaat gi waralu ko li ko waral dëgg dëgg mooy pas-pasu sëñ Cheikh Abdou Latif sëñ Cheikh boo ko xamul wax ci moom dana jafe tuuti ndax bu xew-xew amee potum ndox sax boo ko waree jël di ko naan sëñ Cheikh day jàpp ne moom mooy ki ko war a jël indil la ko nga naan ko ba bu ko yëgut dangay gis ne loolu dis na gan ci moom maanaam ñàkk gi yëg fi ne Cheikh Mountakha loolu dara waralu ko lu lulul yëg-yëg bi mu am mooy fasut yéene kër gi doxin wi ak nosin wi ak jëm kanam gi dara xajam ci walla dara yàqu ci maanaam dafa dafa sentir responsabilité ci ne su doxee moom la doxal su doxin wi jàngaree mooma yëg-yëg boobu la sëñ Cheikh Abdou Latif am loolu nag li ma ko waxee léegi ci njëlbeen moo ko sabab sëñ Abdou mi ko meññ nga xam ne sëñ Abdou Latif addina ak li ci biiram amu ci woon soxla man gone laa waaye li may doon doon gone am naa lu ma jot a xam ci moom ndax sëñ Moustapha ci laa yaroo mu daan ma fa fekk ma xam fi ko sëñ Moustapha tegoon gis ni mu daan doxalee ak sëñ Moustapha loolu leer ma ba tax na sax bi may ñëw bind naa ci xasida goo xam ne incha allah dinaa ko jàllale ca kanam xasida goo xam ne sublétif la tàmbalee ci la yam ngir jéem a génne li nga xam ne yëg naa ko ci moom mu dib yëg-yëg ak jéem a génne li nga xam ne sun borom jot na ma koo mosal ci moom ci xam loolu ma wax léegi nag jikkooy sublétif jooju ak taalu bi googu moom la riib moom la riib sëñ Cheikh da ko koo talqeex ba sëñ Cheikh fi mu ne nii li ko gën a neex mooy dox doxinu murit yi taalube yi boo ko fekkee ci suñ biir kër kër sëñ mun Muntaxa masalan kër Cheikh Mouhamadul Bachir laa bëgg a wax xew-xew am dangay jàpp ne sëñ Cheikh yiliful ñaari nit mun Muntaxa loolu neex naa wax dangay ngay jortu ne kii yiliful ñaari nit mbooloo newut ci gannaaw fekk moom ñi mu yilif geesuwu leen moom fi mu teg bëtam mooy fa nga xam ne bu fa sëñ nekkoon foofa lay teg bëtam te fak tànkam fa la xool li ko topp amu ci soxla sëñ Abdou Latif juróom waajuram nag dafa waxoon ne bi muy jógee fii saam di fekk Cheikh Mahamadul Bachir xàmmewul loxoom nday jorom ak càmmoñam waaye bi mu demee ba sëñ Bachir noppi ci moom ba muy dellu si bi mu dellu see ñim kenn ku ne bëgg ngaa doon sëñ Abdou Latif te sëñ Abdou Latif bëgguta doon yow loolu taxawaayu sëriñ Basiru ci sëñ moo ko waral ak pas-pas bu Sëñ Abdou Latif amal boppam boo xam ne kenn mayu ko ko da koo jëndante ak njëg ba mu jar mu moom ko nettil nañ ma bërki démb ci taalubeeg Sëñ Abdou loo xam ne doy na doy na takk ci ne ak taalube fii la mën a yam mooy sëñ sëñ Abdul Xaadir da koo gane si bi bi bi ngan gi jeexee ba sëñ Abdul Xaadir di dem sëñ Abdou Latif tekki kaalaam lal ko ci suuf bi oto bi génnee mu tonni suuf si pneu oto bi nekkoon jaar fas ko ci kaala gi daal wax ne lu mënut ci nit amut fu sa pas-pas toll lii mën na laa defal la nga bëgg ca loola. loolu nag doy na doy na doy na rek wax ju tuuti ci Sëñ Latif ba ci kanam ndax wax dëgg yàlla jëmma ngi joo xam ne soo wàccee fii danga gis ne kii digganteem ak boroomam ci li mu ko liggéeyal ay nax amu ci. pas-pasam ci sëñ Tuubaa it sëñ Tuubaa na ko ko sàmmal ko ko ba mu egsi fii loolu fi mu ne soo leen jaraboo muy doom yu góor yi ak doom yu jigéen yi kenn ko ne boo làmbee biiram pas-pasu kese nga fay fekk loolu nag alxuraan dafa wax ne wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida al baladu tayib mooy sëñ du Latif meññet mi mu jur nag mooy njaboot gi nga xam ne ñoo yore pas-pasam gannaaw di ko ko wéelal am naa ci moom yëg-yëg bu sori boo xam ne mënuma koo wax ci lu gàtt ba tax ma të moo tax ma tënk ko ci xasida xasida goo xam ne incha allah buñ demee ba ca kanam li ma lii ma lay wax nii dana gën a leer ci buñ ca àggee bu soobee yàlla Euh, waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk yi kon yéen a déggoo kàddu yu am solo yi nga xamante ne bi tukkee na ci Serigne Abdoulaye Diakhoumpa mu nekk kàddu yu am am solo nekk kàddu yu matale Serigne Abdoulaye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon xam naa ne ci kanam tur incha allah nga jàngal ñu xasida boobu bu ko defee euh, mbokki mbokki jullit yi rawat na mbokki talib yi xam kan mooy Serigne Abdou Latif jërë ngeen jëf